Adama Mbengue euh, maa ngi lay nuyu. Adama Mbengue alors ngay njiitu nag ONG Action euh, pour les droits humains et l'amitié di ADHA euh, ab benn bataaxal goo xamante ne jot ngeen ko fësal jëm ci situation nag migrants sénégalais yi nga xamante ne ñoo féetee ca Nador ñu mel ni ñoo ngi ci ay jafe-jafe yu métti te tamit mbir mi day gën di persister ana nga nga jàngatee lu ni mel. waaw euh, balaa ñuy ñëw si nadoor bi da nga ñuy permettre rek ñu def benn lecture bu gën a global pour englober en réalité euh, lu xew fan yi nii yëpp si situation mbëkk bi bu nekkee euh, dañuy def lecture globale xam nañ ni que Sénégal dañoo am benn population bu nga xamante ne bu jeune la jeune bu nga xamante ni daal ñooñu tolloog si treize millions cinq cent mille individus yi nga xamante ñooñu am lu tolloog trente mois de trent cinq ans hmm. si biir population boobu soixante seize virgule soixante quinze pour cent nekk ñu nga xamante ni seen at weesuwul vingt cinq ans ñu gis ni que chaque année dafay am ñu bees ñu nga xamante ñooy tolloog ci trois cent mille jeunes yu frappé à la porte de l'emploi bu ñu sukkandikoo rek ci actualité récemment rek gisoon nañ ni que ñu def bac lim bu ñu toll ak ñu ko am te gis nañ ni que ba fu ñu toll nii ah bu nekkee commencé nañ boo ñu dooree yàggul moom mooy ñi nga xamante daaw la ñu am seen bac ñu orienté leen si yenn si université ñenn ñi boo ñu commencé ay yenn weer rek la donc yooyu noonu yëpp boo ko boolee mu nekk benn cocktail bu nga xamante ni daal moom moo tax daaw lu tolloo si trente neuf euh, trente neuf euh, millions euh, mille autant pour moi migrants ñoom ñoo terre feneen di archipel espagnol hmm. wax ñu laak ñu nga xamante ñoom ñoo ci jot a faatu ñu gis ni que euh, demande passeport bu amoon pour jël tamit yoonu Nicaragua bi ñooy tolloon ci diggante premier septembre ba le 16 novembre 2023 ñooy tolloon ci quarante mille neuf cent douze donc euh, nu ma ko waxee boo ko boolee nag moom moo nekk benn cocktail bu nga xamante ne moom moo tax jeunes yi fu mu toll nii Euh, dañoo ñëw imp yàkkamti yàkkamti ndaxte ñooñu doon xaar benn espoir bu nga xamante moom moo leen tax pour ñu mën a toog si dëkk bi liggéey fi tekk fi waaye nag boo ñuy yàkkamte trop moo tax ñu ñëw jéem a jël bato yi moo tax si fan yi nii rek nga dégg ni que am na ay bato yu nga xamante ñoo leen téye maintenant nag ku ñëw si nadoor bi Nador dafa am benn ndaw bu nga xamante ni ba sant ba moom moo ñu euh, interpellé woo ñu maanaam nekkul sax euh, sa mbokk mais <laughs> bala sant waaw <laughs> moom moo ñu ñëw interpellé <laughs> boo ñu interpellé nag euh, dafa fekk ni ñoom dañoo ñëw di dajaloo xam nga Nador dafa nekk si si euh, Maroc si boo remonté vers le nord maanaam ñoom dañoo nekkoon Casablanca di daan seen doole léegi bu ñu ba Nador dañuy nekk ay groupe groupe yooyu noonu ñu nekk nag bu ñu ñëwee dañuy jox seen xaalis passeurs yi passeurs yooyu noonu ñu ko jox nag ah malheureusement Euh, pour ñoom euh, andi ñu leen benn gaal bu nga xamante moom moo leen yóbbu ci archipel espagnol léegi nag ñàkk nañ seen xaalis ñu nekk ci des situations yu déplorables yu difficile ba jot nañ ci def sax ay yenn jéego ndaxte euh, organisation yu nga xamante ñoo fa nekk ak suñu antenne bu fa nekkaale ñëw na dem ba jàppale ci ñenn mm. ñu nga xamante ne actuellement ni ñoo ñu Casablanca Mhm. alors li ñu des ci wàllu mbëkk mi ndax gis nañ ne marine nationale tamit eh, jot naa teg loxo lu toll ak 202 ay candidats waaye rawatina nag ay jigéen te juróomi jigéen eh, lañ ci gis mu nekk phénomène boo xamante ne mën nañ wax ne jigéen ñi ñoom tamit eh, dañoo nekk dans le besoin. waaw xam nga euh, sànq boobu ma doon wax rek ci rapport yi gis nañ ni que population boobu noonu gis nañ ni que moom ak ndaw yi duñ ci gis jigéen ñi dañ ci am benn pourcentage bu am solo beneen bi mooy euh, boo dee xool nekkul loo xamante ne lu bees la bu nekkee da nga koy ñëw def ay jàngat nekkul lu bees jigéen ñi yàgg nañ di jéem dem di ma ki yóbbaale seen doom phénomène boobu noonu tamit boo koy expliquer am na lu bëri lu ko mun a expliquer gis nga tey boo demee ba egg fenee di îles Canaries wala nga nekk ci benn dëkk boo xamante ne egg nga fa bu nekkee yow dañoo sa doom dañ koy ñëw d'office téye ko ci centre léegi bu ñu ko téye tamit yow tamit dañ lay téyewaale maanaam dañ lay jàpp pour utal la benn statut de de demandeur d'asile pour nga nekk un réfugié plus tard. Hmm. loolu moo tax tamit jigéen ñi boo ñu comprendre brèche boobu noonu ñu si bëri jéem si dem waaye nag euh, am na fenn foo xamante ni il faut ñu taxaw seetlu si parce que gis nañ ni que euh, am na lu nga xamante ni yàgg nañ ko maanaam nguur bi nga xamante ni moo ñu door a toog. c'est vrai que cent jours xaw na gàtt trop mais wax nañ ni que dañoo war a changer doxalin doxalin nag changement boobu noonu moom moo tax ñu fal leen gis nañ ni que ah si exemple yu may joxe rek lu toll ak vingt huit millions d'euros lu toll mooy méngoo ak quatre vingt cinq milliards de francs CFA Espagne jox na ko muy aide publique au développement Sénégal diggante deux mille dix ba deux mille vingt loolu nag muy migration circulaire nga xamante dafay jaar ci ministère euh, des affaires étrangères Euh, nga xamante ne changé nañ sax tur bi léegi loolu mooy wàcc dem ba BAOS BAOS nag moom mooy ay bureau d'orientation yi nga xamante ni ñooy sukkandiku si si si si ministère boobu noonu bu weesoo loolu ñu gisaat tamit benn lu nga xamante ni mooy migration euh, régulière bu am si buy jaarale si ANPEJ foofu dañuy tànn ay ndaw te loolu boo mu amee du léegi yàgg na dañuy tànn ay ndaw yóbbu leen Canada donc muy ay euh, situation yi nga xamante ne teg nañ ko euh, waa Europe ak ñeneen dëkk ñoom ko teg pour jéem a pousser ndaw yi pour ñuy migrer de manière régulière waaye nag bànqaas yooyu noonu lu ñu jaaxal mooy demuñu si woon communiqué lu tax communiqué wuñu si rat loolu moo tax ñu ne le président dafa war a def injonction de ces différents corps de contrôle pour ñu ñëw saytu euh, ñooñu nan lañu ñu yoree gestion wu structure yooyu noonu lu weesu loolu gis nañu ni que malgré Frontex lu mu fi nekk malgré euh, partenariat opération opérationnel conjointe bu nga xamante ñooy nekk ci deuxième phase bi première phase bi moo ñu nekkoon chiffré ci neuf millions d'euros ci trois ans maanaam jeex na euh, fan yi euh, weer beneen rek ñu weesu ñu gisaat ni am na benn décret deux mille vingt et un cent soixante douze du vingt janvier euh, mille vingt et bu porte création conseil national pour l' insertion et l' des jeunes ñu gis ni que am na benn stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière buy durer dix ans nga xamante ñooñ koy jëfee depuis juillet deux mille vingt trois ñu gisaat tamit ni am na benn montant si juste exemple bu ñu jox ndaxte montant yi bëri na bu chiffré ci six virgule six milliards mu nekk soutien à la jeunesse euh, ñu defoon ko ci août deux mille vingt trois te Union européenne moo ko joxoon yooyu noonu yëpp ak ni ñu surveiller suñu suñu frontière nga xamante ni man euh, bu Espagne ñoo ñu fi tamit ak ak ay euh, drone yoo xamante ni mettre nañ ko à la disposition de notre de notre ci ñu takk der yi mm. yooyu noonu yëpp taxul ni migration bi en deux mille vingt trois demoon na ba chiffré si lu ëpp trente neuf euh, arrivé yi nga xamante ne egg na si archipel bu espagnol sans compter ñuy jël yoonu agades bi nga xamante ni fan yi rek ñooñu annoncé ni que ñu bloqué Niger dañu leen andi donc yooyu yëpp boo ko recoupé daf lay woon ni ah malgré disposition dispositif yooyu noonu yëpp ñu teg il faut ñu jéem a changer parce que yee dafa wane ay limitam changement yooyu noonu nag lu koy waral lu ko war a teg moom moo bëri na am na rek liñ ci tënk mooy dañoo yàgg wax ni que il faut mu am benn politique de jeunesse boo xamante ni ndaw yi ñoo koy càmbar pour ndaw yi tey doo feebar ñu ñëw di yóbbu sa papa wala sa yaay pour ñu ñëw consulter ko yow la ñu war a consulter loolu mooy un deuxièmement tamit il faut ñu attaquer racine bi racine bi mooy lan gis nañ ci ay ndaw yoo xamante ni lenn rek moom moo leen ambitionné moom mooy jéem a tecc tekki yooyu noonu nag boo koy def nekkul rek les marchands ambulants dégg nañ fi sànq rek sa revue de presse boo mu ko doon déglu ay ndaw yoo xamante ni seen contrat dañ koy ñëw jéem a euh, xotti maanaam chômage lañ leen yóbbu léegi nag ñooy noonu ñëpp nga xamante ni ñooy dem ci chômage ñu gisaat yenn direction yoo xamante ni si je peux citer direction de l'emploi di accompagner ay jeunes à hauteur de soixante pour cent ay entreprises mais entreprises yooyu noonu ak ak yelleefu ndaw yee noonu ñu war a respecté ñu ko respecté parce que xaalis bi ñuy jot ak lu ñuy jox ndaw yu bokkul droit du travail boo demee ci entreprise yu bëri ñu ko war a respecté duñ ko respecté noonu donc yooyu noonu yëpp muy nekk ay paradigme yoo xamante ni daal bu nekkee changé wuñ ko euh, dafay nekk loo xamante ni daal ndaw yi duñu am espoir pour terminer ci benn point rek moom mooy gis nañ ni lu xewoon moom mooy continuer ba léegi ni lu tax ma mooy continuer parce que dañoo gis ni ay ay yoo xamante ne ay doublon lañ direction yooyu noonu ñu bàyyi leen fi ba léegi fal fi ay nit man duma wax ni dama bugg a toj benn kër ñëw fekk kër bi ba pare di si tabax deuxième étage ou le troisième étage <laughs> alors pour terminer. <laughs> Mhm. mooy am na benn conseil national de la jeunesse bu ñu am nga xamante ne seen mandat jeex na depuis deux mille dix neuf waaye ba léegi nii gisuñu nguur bi yëy si yaabu si ba wax ni que ah lii nii non seulement de manière légale euh, ils sont plus représentatifs ils sont plus légaux mais au-delà de ça sax dañ ko war a supprimer parce que c'est de l'argent bu nga xamante ne du contribuable lañ leen di jox te seen mandat jeex na. Mhm. te ñoom seen membres yëpp ils sont représentatifs dans dans dans les directions et dans les ministères. amuñu si benn njëriñ bu nga xamante ne mooy ndaw yi. alors ONG ADHA ana lan la ci jot def rek ngir mën a xeex euh, lu ni mel. bon yàgg nañu def xam nga ñun on joue notre rôle de veille et d'alerte jour de veille et d'alerte boobu noonu moom mooy lan mooy à travers euh, communiqué yi ñuy bind à travers euh, émission yi ñuy def à travers tamit sensibilisation yi def yeneen yi nag mooy action terrain yi ñuy def malgré nos maigres moyens boo fàttali ko en deux mille vingt deux y avait tolloo cent soixante yi nga xamante ne bloqué woon na Niger nekkoon fa lu ëpp juróom-ñeenti weer yi nga xamante ne bloqué nañ ko foon te grâce à votre rajo defoon nañ si woon sax benn émission bu nga xamante ne alerte nañ ba def nañ ay jéego ba nga xamante ne ah lii nii di euh, Nations unis yëpp ñoo ñu affrété benn vol cargo ba andi leen. lu tollook euh, ñu ñu nga xamante ne ñooñu bloqué feneen dina doon tamit jot nañ si def ay. jéego yi nga xam dañoo lëkkaloo mooy suñu antenne bu nekk Maroc lëkkaloo ak yeneen kuréel yu nga xamante ñoo nekk foofu noonu dem ba jàppale ndaw yu nekk foofu noonu na door xëcc leen indi leen fene di Casablanca ñu toog fa 48 heures yi nga xamante ne accompagner nañ leen financièrement jàppale leen ñëw waxtaan ak ñoom ah yeneen tamit ak jéego yi nga xamante ne daal def nañ ko xaw na bëri bu nekkee dañ ciy lim rek mën nañ fi yàgg mais daal comme lu ñuy wax rek moom mooy euh, organisation défense des droits de l'homme yi am na wàll bu nga xamante war nañ ko jëfee waruñu xaar di nourrir de la chose mais ñoom ñoo war a nourrir cette chose là moom mooy lan mooy sensibiliser ñaaxaat ndaw yi mais booy ñaax nag ndaw mu dugg ci nokk bi te andiloo ko ay solution yu concret dafay dugg fii rek génn fële na am na rôle bu ñu si joué mais rôle boobu noonu dafay accompagné par des actions yu nga xamante ne le pouvoir public moom moo war a ñëw jëfee loolu. Hmm. Adama Mbengue jërëjëf may fàttali rek ne yow yaay njiitu ONG kuréel gi nga xamante ne nag mooy xeex ak yelleefu doomu aadama yi di ADHA ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. yéen la ñuy jaajëfal di remercier seen taxawaay di wax ni que rek pour lutter contre cette migration la ñëw jàppale leen yéen ñu nekk ndaw nekk di liggéey si ay euh, journal wala si ay kër yu nga xamante ne daal euh, état bi ñëw jàppale leen ñëw soutenir leen loolu mooy benn solution la rek par rapport à cette migration là jërëjëf. jërëjëf.